Eh, di ziare bu baax suñu jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu àndal muy sëñ la Mbacke di jëwriñi commission sociale comme commission sociale tamit di benn bànqaas bu nekk ci Touba ci kanam di amit liggéey bu muy taxawee boo xam ne nii eh, Touba ci kanam la koy taxawal eh, muy li nga xam ne dañ koy jaayante di ko laaj lu bokkut ak ñaari téeméer yi nga xam ne moom la ñuy laaj murid yi nga xam ne altine bu jot way tawat yi nga xam ne dañuy ñëw ci tuubaa ca kanam te yaakaaruñ ci lu dul Touba ca kanam bu ñëwee Eh, Touba ci kanam da leen di yebal ci commission sociale ñu dem bindu fa ku yàlla dogal ñu agsi ci sa tuur nag dañuy def délégation altine bu jot dem def visite de terrain xool ba xam sa tawat fu mu toll ak lu ca commission bi man bu ñëwee jébbal ko mbooloo mi bu ko defee kilifa yi waxtaan ci xool lañ cee mën a taxawee loola doon sababu ñu ne nañ jaar fii ci menn mbokk moo xam ne moom it eh, eh, tawat ju ko daloon ah, mu amoon jafe-jafe yaakaaroon ci Touba ci kanam yàlla dogalee mu ñëw ci commission sociale bokk yi waxtaan ci ah moom tamit eh, am luñ ko jàppale eh, ba mu dem def opération suñ borom tamit yàlla dogal na mu am tan bu baax ba fi mu ne mi ngi nii di jëli ay rendez ci lañ ne nañ fi jaar nemmi ko fi bi ñu fi jaaree nag moo doon sababu suñu ne nañ egg si waxtaan ak moom laaj ko fu ak wéram toll waaye tamit laaj ko tamit lan mooy xalaatam ci Touba ci kanam ak ban yëg-yëg la am gannaaw boo xamee ne amoon na lu lu ko war ci wéram tam lottoon ca lool yaakaar ci kanam bi mu ñëwee suñu borom dimbali ñu waaye dimbali taalibe yi ba lañ yaakaaroon ci ñoom mu fekk ko fi bañ taxawu ko ba mu dem Dakar ba def opération bi mu waroon a def te somba defe naa liñ ci jotoon a def naa toll ci 800 mille yoo xam ne jàppale woon nañ ko ko euh, tey nag moo taxoon ñu ànd ak kilifa yi bi ñu wàññi ñu ne nañ fi jaar nemmi ko ko seet ko. ndax feebaroon feebar bu métti su ma tëddee pour ma nelaw sax problème la doom su ma doon dox fii ñëpp dañ ma yërëm wax dëgg feebar bi teggeeku na ma ndax bi ma opéré ba léegi wax dëgg yàlla yëgatuma ci métit te pour ma tëdd sax nelaw problème la doon avant ñu may opéré su ma daan tëdd du ma mën a nelaw su ma dee dox duma mën a dox normal sama tànk yeex yi dañu ma ne dañuy laalant léegi bi ñu ko xasee ba opéré nag suur bi ñu ko opéré ba léegi wax dëgg yàlla amatuma ci benn métit xanaa kay rendu yu ndaw ndawaan rek moo ci des di maa maa ngi koy def di ñaanal tamit yàlla yamale ko fa de bu ñu tëddaat waaw ci daraja Seydina Mohamed te maa ngi ñaan ñëpp. ak képp ku mel ne man dugal ci loxoom ci Touba ca kanam man de sama loxo mu ngi ca biir wax dëgg yàlla bu njëkk ma ko nii waaye de man sama loxo nga ca biir di ko soññ ñëpp ndax Touba ca kanam njariñ la fi faj bi yombewul woon noonu wax dëgg yàlla ñu ngi ci doon jéem luñ man waaye tamit amuñu woon moyen boobu yëpp pour ñu defal ma ko léegi nag biñ booleeg kii sama nijaay mu yóbbu kayit yi ca Touba ca kanam léegi bu biñ demee tamit wax dëgg yàlla amuñu amu fa benn jafe ci leen ñëw après ñu ñëw fii bi ñu ñëwee xool rajo yeeg suñ mu talaa bi mu ñëwee am ñi mu àndal bi ñëwee lañ xool rajo yi xam ne li ñuy wax noonu la après biñ demaatee Dakar ñu lijjanti liñ doon jox jox ñu cent 800000 après ñu dem di fay ñoom ñu ne fayaguñ après ci lañ defaat daal ba ba opéré ko waaye wax dëgg yàlla maa ngi sant bu baax. ndax opération bi buñ ko defoon mën naa ne leneen mën na ci xaj ndax doon nañu wax naan mën nga dem sax ba am doom dina la jafe wala sa tànk kenn dootu ko fajati ndax day am fu mu toll ndax yax bi ci biir mu commencé woon yàqu. waaw metti woon na trop trop trop wax dëgg yàlla maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm te yàlla mi am fay yàlla na ma leen yàlla fay di daraje Seydina Mohamed maa xam ne Touba ca kanam moom tànki kanam rek waaw liggéey sañ Touba moom ku koy def ca kanam rek maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm ku ne xam ne feebar doy na waaw feebar amuloo fajoo ñi moom ñaari feebar ngay boole bi yàlla dogalee ñu jëm ci xool ci ay jéego comme ni mu ko waxee def traitement yi Ndamaatu Jannatu hôpital bu ne Maris fa ne ñu dugg fa bari na foofu dem nañ fa. bi yàlla dogale bañ ne ba trop mbir mi dëgg dëgg dëgg ba xam lan la dëgg dëgg dëgg ah, bi ñu demee laa daan teg ñu ko xoolee maanaam ñu wax fañ mi fañ mi xaw a seer lool te kon nag xam ne jamono léeg-léeg ñu léeg mu weex te yéen mbir mi xaw naa bette. waaw ah, bi ñu ci def ay jéego ci laa dem ci ne ci laa jël kayit yi dem ci Touba ca kanam ci social bi keroog Mourtala Seck laa fekk expliqué ko mu tey kayit yi ma danaa am ñu ko woon ci biir ñu waxtaan ci ma ne ko daal moom dafa feebar xale la xañ na lee bëgg naa faju mais mooy moo ko matewut euh, ginaar bi ñu xoolee faj mi lépp lépp lépp euh, mu nekkoon un million trois cent mille ci la daan teg waaye boobu la daan teg ñoom période boobu mënuñu opérer ndax nawet la woon te seen mooy matewu ko woon te boobu moom mi tàng bi day metti ci lañu xool xool xool xool xool mu xaw a doy waar ñu soog ko yóbbu hôpital bu ne Thiès fa lañ ko opéré mu toll ci un million huit cent mille euh, feebar moom Euh, maanaam naaw dal rek ku ne lay dal fépp lay dem fépp lay dem waaye nag ki feebar gis ku ko ne kaa ma jàppale wax dëgg yàlla kooka euh, daanaka rek moom amul loo ko fayee daal ndax metti woon na loolu doyoon na waar loolu loolu lépp man sama kanam lépp maa ko taxaw hôpital bu ndem noo ko ànd këyit wuñ ciy maa ko ànd bi mu ñëwee barke dem ba rajo bi ma dikk xool si ko ne ko mu mel daaneel ka mel na ne mbir mi jeex na massage yi yëpp jàll na li mu def daal léeg-léeg mu am 3 mois dem ñu xoolaat ko mu demaat moom mi ngi sant bu baax a baax a baax a dëgg yàlla maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm yéen ñëpp nag waa Touba ci kanam ñëpp ñi ma ko bokkal ñëpp ñëpp ñëpp góor ñëpp nag di soññ ñëpp te xam ne lii moom lépp ñëpp la lu ne ku ne nekk ndax lu am solo la man de bu ma ci duggee léegi yokkute rek laa ci gis wax dëgg yàlla sama dëgg laay wax bu ma ci duggee laa ci gis te gëm naa ne bu ñu fi yàggee tappal yu bari dana dañ ci dëkk bi man la ma wax rek laay wax ba ma karo ma jëkk dagg loolu laa wax waaji mu duggee ci gis yi foofu ci fi ñu dagg kars ma dagg carte jox ko sama numéro téléphone sama adresse ne ko gëm naa ne li mooy yoon wi nga xam ne mooy ni tappale ci dëkk bi façon tappale bu man doon nag te leer na leen yéen xam ngeen ko